bokk talibé yi liggéey baa ngi nii liggéeyu yeesalaat eh, bërëbu miir bi nekk ci bërëbu soxna sugaan bi ak soxna Fat Dia ak eh, soxna benn gaabu ak soxna Aminata Gànnaar maintenant bërëbu bi gis ngeen lii moo dem ci xol bi bokk talibé di ko yëgal nii muy foofu noonu ñoo waxoon ni kat dañ koy mujj peinture waaye nag suñu borom def taw féex maanaam daanaka mu dem ba nag kara bi nag li ñu am si kara nag maanaam mel na ni mën na koo defar lépp rek mu ñu kara si biir ak si biti ak bëri bu soxna amante gànnaar bi biir ak biti ma ak tamit fee ca maanaam ëtt ba fee ne mu toog ne kon loolu tawfeex la kon kon biir bee nekk nii waaw daanaka xooli nañ ko ba pare biir bee nekk nii ñu koy xooli daanaka mooy liggéey bu mujj bi fii ci wàllu xol bi waaw ñëpp ñëw nañ sëñ Tuubaa rek soxna su maanaam Baay Faal yeeg murit yeeg waa ak lu xas da nag gàcce ngalaam waaw waa lu xas de bàjjan yaa ngi nii bàjjan yaa ngi nii ak jëwriñ yi maanaam ñoom jëwriñ na Abda waaw ñëpp ñu nii fii tamit dañ koy karale fii waaw dañ ñëw dañ koy peintre waaye daal taw feex feeñ na maanaam yëpp dañ koy mujj karale waaw kar yaa nekk nii gis nañ waaw suñ fàllu galas ak ñi muy àndal waaw gars yi gis nga leen ñu ci waar yi waaw waaw sëñ Fallou Gallas Baye Fall la si liggéey bi. waaw ah, liggéey doon dara ah, mel na ni xooli nañ ba pare de. waaw ah, xooli nañ ba moo gis rek. mooy lan. gopte mooy mooy gaz de ciment bi jaxase ko ak yi. waaw pour dóor ko pour miir bi gën a am doole. dugal dugal fee feer yi doon dagg noonu si di. waaw waaw gën a may biir doole. Hmm. su ko defee nag bu ñu xëyee soo incha allah ren tàmbali liggéey. macha allah amiin yàlla nañu soxna yàlla gën a gàttandu. waa jëwriñ daa mel ni xooli bi mel na ni yaatu na de pare na de daa mel waaw dañuy gopte dañuy gopte miir bi. gopte waaw. bu ñu ko xottee nii. Hmm. def ci feer yi ak grenadier yi. waaw yenn bën-bën yi. waaw. mfugiti mfugiti kisema agrenary wala fa day may mi ko doole waaw waaw do ka la ci kaw waaw da melni jara ndax kare da melni kare gi dafa am carton ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah 60 centre day dis waaw mur bang koy tek day am doole waaw waaw te deg te deg na nga xana dañu bëgg suñu liggéey fi ak témérat ku ñew fekk ko fi la moy liggéey waaw ndax sa dind liggéey ba pare ñu dindi wat ko dañ koy dindi wat baxu waaw waaw waaw yeen ya, ki am na gaay yu taxaw yo xamanteni fimu toni waaw da ngay liggéey liggéey bu wër rek waaw bu ko defé ñom liggéey man fee yàgg ba yéen a jooj lañ am allah macha allah yàlla soxna si gën a gàttandiku waaw kon kon maa ngoog waaw kon kon daal alhamdulilahi rabbil alamin daa mel ni waaw mel ni liggéey bu njëkk bi mel na ni feet na boor muy xolli bi waaw suuf si tamit mel ni dugal nañ ko waaw suuf si ñëw na kon nag euh, techniciens yi nga xam ñooy war def euh, surface bi ñoom incha allah si njiital sëñ Fallou Galas Niang dinañ tàmbali liggéey bi kon ñu ngi ciy woo ñëpp altine daal waaw ndax bari na ñuy wax naan yëguñu woon liggéey bi de da ngeen waaw kon nag ñu ngi koy tuub ñëpp lañ fi nekkal Serigne Fallou ñëpp lañ fi nekkal de ñëpp lañ fi nekkal waaw ñëpp waaw ku na nga yónnee rek waaw waaw waaw su jamono ñëw hmm. na nga barkeel ah, ñëpp ci war a barkeel ab liggéeyam hmm. liggéeyloo gi mu daan liggéeyloo doomi sëñ Tuubaa yi daan neex kenn ku ci ne di ko sàkk waaw kenn ku ne daan la ba nga soxna su daan def lo nangam waaw kon moom ko amna na lu ci sëñ Tuubaa def dok ak ñom hmm. i mak sax daaw ñu leen liggéeyloo ndax sëñ wa len dal xole waaw waaw ko moom liggéeyal ko da am siru bu ci ne kon ku ta ñëw na nga yónnee sa addiya mu dugg ci biir waaw mu dugg ci biir ma sha allah ndax liggéey amna tambale way amul fu mu yem waaw macha allah jaajëf jaajëf amiin dam amiin amiin amiin amiin waaw